asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi tudd El Hadj Malick Diop nekk membre ci biir association UPS unis pour le sociale tey ñu amaloon benn don de ndogu boo xamante si nii bii ren mooy première édition bi ñu war a dem fi nga xamante si nii moom mooy maison de correction bu Tivaouane ñu leen li nga xamante si nii moom mooy ndogu bi may profito di présenté waale waa groupe bi yëpp xam nga di nuyoo au nom de toute l' équipe allah ba étant jeune ñu nekk si dëkk bi nga xamante si nii moom mooy Tivaouane donc ku ni xam ni ville de culture la ville la boo xamante si nii am na ay valeurs yoo xamante si nii moom moo fi nekk donc ñun ñu nekk ay xale yoo xamante si nii li ñu motiver mooy genre gis nañ ni weeru koor suñu ay morom ñoom ñoo nekk foofu noonu ñuy ñaan yàlla génne leen si si si si jàmm ak salaam ñu gis ni ñoom tamit nekk nañ ay nit yoo xamante si nii genre ci société bi lañ bokk donc raison pour laquelle ñu ni kat comme ñun ñu ngi suñ kër papa yi ak suñu kër yaay am nañ aussi suñu liberté boo xamante si ni genre buñ bëggee dara dinañ dem ak suñuy tànk def ko pourquoi pas suñu morom yi nga xamante si ni ñoom ci société bi lañ bokk ñu jël initiative defaral leen même bu benn jour la sax ñu def si benn don ndogu yóbbul leen ko te yàlla rek tax loolu moom moo indi initiative bi après si laa si waxtaan ak sama jigéen ñi ak xam ñi ngeen gis nii ñëpp ñoom tamit ñu accepté loolu noonu xam ni idée bu rafet la ñu ànd ko di ko doxal ba tey jii nii ñu war a yóbbu ndogu bi incha allah. bon budget bi xaw ma exactement ça tourne autour de que maanaam genre ñun dañ si doon def suñu doole ak ak suñu yéene ak ñeneen ñoo xamante si ni bokkuñ si ñun ñu si def seen doole ak seen yéene parce que Sénégal nag nekk na dëkk boo xamante si ni rawatina Tivaouane soo wootee social rek daanaka gars yëpp dañuy ñëw donc mënuñu xam exactement mënuñoo estimer exactement ñaata lañ si def si xaalis mais on a dépensé beaucoup d'argent te jar na ko te suñuy morom yi nga xamante si ni caabi daf leen féete ginnaaw jaral nañ ñu lu ëpp loolu. ba xamante woon am na ñoo xamante si ni xamante nañ am na ñoo xamante si ni xamante nit moom bu ngeen bokkee jëmuwaay pour ngeen ànd daanaka du nekk problème comme ñoom initiative bi peut-être mënoon na nekk sa xol wala mu nekk sa xel il suffit kenn déclencher loolu noonu rek képp ku si bëgg a jàpp rek wala képp koo xamante si nii amoon nga ambition boobu noonu da daw nga ñëw rejoindre groupe bi par la suite si lañ si waxtaan ak MC Fama ubbi groupe bi xam nga ñu def affiche yi ko suñu yeneen morom yoo xamante si ni aussi gis nañ initiative bi mu rafet ñoom tamit ñu amoon yéene def ko te amuñ peut-être ñuñ collaborer wala ñuñ àndal ñu daw rejoindre ñu loolu moom moo waral tey mobilisation bii nii am na ñoo xamante si ni fii lañ xamante am na ñoo xamante si ni xamante woon nañ bu bu yàgg mais ñun ñëpp boo xoolee ay frères et lañ ndax ñun ñëpp ñoo am benn objectif ak benn passion bi muy nga xamante si ni caabi da leen a fete ñu ne suñu morom ñu dem bégal leen alhamdulilah kay ñu ngi sant yàlla bu baax ndax on partie de rien de zéro lañ commencé nekkul woon association boo xam ne genre dafa am budget wala dafa am benn fonds boo xamante si ni nekkoon na fi dañoo jël ñu def ko xam nga ñu cotiser xam nga am na ñeneen ñoo xamante si tamit ñëw dugal ci seen loxo bu baax ba tey jii nii yàlla def si ndox mu seddu guy commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim te gëm naa ne incha allah dinañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabil alamin lii weesoo loolu tamit waxtaanoon nañ si ba pare bon on a décidé ñu conserver li nga xamante si nii moom mooy group bi parce que comme li nga wax rek hivernage bi mi ngi ñëw te xam xam nga ni kër yu si bëri dañuy am mbënd mi daf leen sonal donc dinañ commencé bu initiative bi jàllee ñu commencé di def ay cotisation yoo xamante si ni hebdomadaire lay nekk wala mensuel yoo xamante ni chaque fin du mois lay nekk bu fekkee ay ñoo xamante si ni genre yelloo nañ même bu dee benn saaku ceeb sax ñu jënd ko xool suñu morom boo xamante si ni mën nañ ni loxo ay waajuram yeggul si ginnaawam ñu jël suñu doole boobu def ko si parce que li yàlla wax ni réewi jullit yëpp buñ dimbalante woon kon maanaam tumuranke dina gën a wàññeeku te ñun ku xam-xam ni Tivaouane lañ dëkk te mënoo koo wax te doo wax religion kon donc am na ay astuces yoo xamante si nii c'est normal ak lu ñu mënti def ak nit buñ mënti nekk faaw loolu nekk si ñun donc loolu la ñuy essayer di ko di ko véhiculer comme li nga wax rek incha allah bu li jeexee dañ koy yokk te ubil nañ suñuy buntu ñëpp képp ku bëgg a ñëw def ci sa doole wala nga def ci sa xam nañ la suñuy buntu parce que social moom nekk na loo xamante si nii genre lu yaatu la bëgg nañ sax mu dem ba génn Tivaouane di dem ci yeneen dëkk yoo xamante si nii hors Sahel la incha allah ku ci bëgg a adhéré mën nga woote ci 77 863 52 17 boo ci wootee incha allahu rabbi dinañ la dugal si groupe bi ak information boo xamante si ni genre bëgg nga ko si rek dinañ la ko jox incha allahu rabbi. di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant maa ngi tudd Fatou Diagne mais nga bokk si membre groupe bi p di di di ñaan. bu renee li nu mën yàlla nañ ko def déwén ci kàttanu yàlla ci barke Serigne Babacar Sy ndax ku sañoon danga koy def te fii koo fi gis bëgg na woon def ko léegi ñu def groupe bi nii pour ñun ñëpp ñu bokk ci pour def ko yóbbu ko ci maison de correction bi nekk fii ci waawan te bëgg na bu déwénee incha allah ñu def ko ñu ngaa ngi sant nag sama moroom jigéen yi ci àndandoo ñun ñëpp di leen sant boobu ba tey macha allah taxawuñu tëdduñu defuñu dara ñu ngi ko bokk ak ñun tey suba leen fi ñëw ba pare tamit di di di sant ñoom aram ñoom ya awaa ñoom ñëpp ku lim daal da ngay juum di sant waa kër gi bu baax si suba ba tey ñu ngi fi nekk bruit bi lu nekk te tamit ñu ngi woor suba ba ngoon jot te waxuñu dara defuñu dara ñu ngi sant tamit Mouhamed bu baax mi ngi jóge ba Touba ñëw ba Tiwaawan tamit bàyyi lépp ñëw urgent moo ko fi jëlee mais yàlla baax na daal ñu ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp te si bëgg bokk tamit incha allah rabbi ubbil nañ ñëpp porte ku bëgg ñëw rek ñëwal am ñun amuñu si benn problème parce que ñun lii rek moo ñu moo ñu moo ñu yitteel buñ sañoon waa Tiwaawan ñëpp benn la ñuy doon di àndoo def lu baax te lu baax ñëpp a ko bëgg a def